elage elage moom moom may joué Kora ñi ñi may aw muy Boubacar ak Baro ak sama yeneen rakk yi nga xamante ne tabaarkalla ñu ngi ci ginnaaw. Euh, looy xaar pour génnee album. waa bon maa ngi ci. parce que buñ la déggee ngay way ak fi nga niveau yi nga nekk. Mhm. mélodie yi dañuy xam ne game bi yëpp dañuy xam ne macha allah li ngay def mën nga ko lan la producteur moo amul moyen yi ñoo suivreul wala da nga bëgg a bàyyi ba si kanam pour euh, album bi. waaw bon gis nga Aziz ñun ñun ci li ñu nekk nii tamit je lance un appel ci nit ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ci télé Sénégal ñun problème boobu lañu am ñun ñi way wayu àdduna mën nañ leen produire mais ñun ñi way wayu diine pour ñu gis ñu ñu produire c'est tout à fait un problème man kenn mësul jàpp ci si samay clip sama studio ba samay clip du kenn koo xamante ne mun na taxaw ne man maa ci ma clip bi ñuy gis xaalis bu bari xaalis bu bëri la aasi ah, ñun suñu ay clip day dem ba ay 3 millions day dem ba ay 4 millions mm. barki yontu yàlla Muhammad mais du kenn koo xamante ne mooy ñëw ne la kaay ma jàppalee la lii donc nag xam nga bu fekkee amoon nit ku la jàppale pour nga génnee album problème la man def naa fi ay son aasi ah, def naa aasi ah, man wayeeguma de wayeegoo barki alxuraanul karim wayeeguma asi ah, son yi ma def te denc ko te bu génnee xam naa ne day toj àdduna moo ëpp fukki junni yoon li ma woyee bu c'est-à-dire way naa way naa way naa album mais mënuñu ko génnee tamit ci condition yi tu vois tu par benn préfère di ko génnee par benn benn nit ñi di ko cons que ma génnee album après nar a toog di liggéeyaat te doo am producteur donc nit ñi foog ñuy jàppale di ñu produit di ma ñun sax mais suñu rakk yi nekk ci suñu ginnaaw parce que du ñëpp ñoo am yenn moyens yi mais abu yow am nga xaalis say daal sañ sañse sa oto macha allah non non non sama abu taayee ak abu yiitaan abu changement am na am nga yor nga xaalis abu asi ah, yàlla yonent mi koy mi ngi lay teral di ko jaarale si doomu aadama yi yonent bee ñuy suturaal rek nga non maay sutura ñuy suturaal non hmm. non naanal xam naa ne question bi dalaa dalaa émission moo la jàmm dalaa yor yonent bee ñuy suturaal rek xabu yor nga. non yoruma dara Rachid dafa génne sànq sa benn so vidéo xaw ma màkk nga demoon def kii wu màkk be yooyu noon ak benn foto foofu moom xam naa ka social nga fa woon. ah si musuma mais là en te voyant. macha mais mais nit ku nekk yokkute ngay laaj. Eh, ngay ngay ñaan ci li ngay li ngay li ngay yëngu. yent bi bu ñuy suturaal yoruñu dara. as ah, dañoo <laughs> li dukkure naan dama dëkk dama dukkure aasi ah, man dama dukkure yoruma dara aasi ah, ah, musuma dem màkk am na waa ju ma diggoon nag ne daf may yóbbu mag kooku moom xam naa sama ak bis bu ko dalee aasi ba ma tàggoo sérieux barki alxuraanul karim kooku xoolal waay sa réalisateur bi ne ko mbaali def waay <laughs> day caaxaan non daal yi waay yow génneel ma daal yi non mus a génn de nii de laa koy wàcceel daal yi nii laa koy fàttee gis nga sañse bi du gis dara insha allah waa kay waay dëgg la ay waay ay waay ay waay yàlla bu ngeen ba ca yor na dafa yor mais as ki la dig maaka nga ni benn agence la waa ji daal dafa buggoon ñu defal ko publicité nekkate boobu moom mu ngi xool nu ñu dóoree asi dëkk bi bari na ñuy dóoraate léegi nu kaa bi demee non après mu ne ma daf ma yóbbu màkk ab ma dem def umra asi man ma def sama kii sama affiche ne ñëpp damay dem. xanaa mooy umra bi ñuy bi nga lancé moom la woon waa ji woo ma ne ma dama bëgg ñëw nga ñëw ñu liggéey dama bëgg nga kii ko utal ma ay clients. waaw billaahi wallaahi taalaahi barki Seydina Mohamed. Asi ba ma utal ko ay clients defal ko lépp mu ne ma bës temps nga war dem umra mais Asi ndakate affaire bi ay dóor daa jël xaalisu jàmm. non non bon xaw ma sax parce man lépp lu may def rek dama ciy dem ak ak ak ak ak ak ak xel quoi. Mm-hmm. musuma ñëw ne ko jël client ne ko am client yi nii. Mm-hmm. Mm-hmm. tu c'est-à-dire li tax ma bëgg dugg foofu mooy ñit ñi nañu xoolaat yàlla ci li ñuy def ko ñu bàyyi yi ñuy yi ak yi ñuy dóore ñit ñi da ngay ñëw ci programme yàggul dara dem naa ci benn programme ki may wax bu seetaanee dina xam ne que ne diw mii mu may seetaan dem naa fi ci programme diw ne ma mois bii dama lay yóbbu nga dem ziare Cheikh léegi imagine toi loolu def nga ko ci sama xel ci mois bi nga ne diw ak diw ak diw dama leen di yóbbu ngeen dem ziarit cheikh naka te yow li ngay wax neen ay waxu neen la beneen bi dem naa ci programme nit jël euh, chèque na ma am yi yi foog ñu koy wax ko pour nit ñi bàyyi di yi fooyee xelu jàmbur yi quoi mm-hmm. signé euh, jox ma chèque bi ne ma au oh, porteur la te signé wul woon chèque bi ma dem di récupérer chèque bi ñu ba chèque bi signé ko maa ngi woo waa ji ba tey waa ji mënu ma jot mais dinañ tase yow. <laughs> li lu ma la gars yi foog ñu bàyyi dóor yi ñuy dóor quoi. li ma dégg nii mooy yëpp métier bi am na risque. mooy am na risque. waaw am na risque asi ah risque bu nekk ngi ci barki alxuraan. jigéen ñi sonaluñ la. jigéen samay xarit lañ. Ah, xale dañ wër de dégg naa ah, samay xarit lañ de. Hmm, samay xarit lañ waaw ñoom man la ñuy wër mais man aussi ñoom laay wër. parce que nag eh, ci eh, li ñuy def nga da jantal mën sañ ah, loolu yàlla dogal ah hmm. madame du fiir yooyu madame sama xarit la jarul muy fiir pourquoi muy fiir bu fi ñaawoon tamit di tagg yonent bi ba xam ne ku ma soxore la ah. <laughs> ah oui te tagg yonent bi am nga ci lu xam naa ci lu ne waaw yàlla mu yonent ngi teralee lu ne a ah, wax dëgg yàlla macha allah tes relations avec ñeneen taggkat yi sànq wax nga ko léegi relation euh, liggéey liggéey yi am ci milieu bi jalousie bi concurrence bi yaa ngi koy dund am na waaw yaa ngi koy dund mm, nañ la def ko wala leen loo xam ne naqari na la nga denc ko même boo ko ta wax waaw bëri na bëri na bëri na bëri na bëri na ci li ma nekk nii mës nañ ma ci def ay coups yu bëree bëri bëri bëri yoo xamante ne ñoo bokk métier mi mm-hmm. mais man dama naan li ma jàppee sama bopp moom laay jàppee ñëpp waaw yéenewu ma kenn lu bon wax dëgg yàlla bëri na ay coups man ñëpp samay ñi may jëflanteel ñu nit ñi di ko gis ñëpp samay xarit lañu. mais sa xarit yooyu ñooy jug ci suuf di la def wala c'est ñeneen. Hmm, non bëri na mais daal am naa ci daal ay xarit quoi. Hmm. waaw am na ci ay xarit li nga bëgg daal du ma ko tontu. tàggkat yonent bi moo la ibil buntu nga dem maison maire bu RTS di fa def émission Nourul Houda la tudd. Euh, Abba léegi yow animateur waaw je suis da ngay concurrence ay Aba ay Pape Cheikh. Mm-hmm. ñoom nga teg bët. waaw ñoom laa teg bët maa ngi seen kaw. problème bi yëpp loolu la boo mm-hmm. gisee Aba fa yi bu may sànni xeer parce que xam na ne que ne à tout moment mën naa nekk kawam. Mm-hmm. ah donc euh, Pape Cheikh Diallo boo xoolee nuyu neex yi may nuyu yëpp xam na ne à tout moment mën naa nekk ci kawam. ñoom daal nañu jéem a fexe daal nuñ ma neexale parce que nag maa ngi ci seen kaw. Aba ak ak euh, kii nu mu tudd euh, Oustaz Mouhamed Mbaye ah, ah, yaa ngi seen kaw no ñoom ñëpp maa ngi seen kaw Oustaz Pape Anne maa ngi ci kawam parce que des na tuuti kenn dootu leen seetaan man la ñuy seetaan Modou Fall yaa ngi ci kaw Modou Fall bëgg je suis le plus jeune animateur et présentateur religieux et puis et religieuse et puis nekk maison mère ci ñëpp bëgg nekk ah RTS du lu du ay du ay fo. mais maison mère laa nekk. waa léegi lu lu lu indi connectique boobu en fait connexion boobu lan moo la dugal RTS ba nga ne animation t'as fait une formation en animation da nga am prérogative yi wala Aboubacry moom wax mën na wax rek il fait l'émission. non non c'est pas ça. Mm. moo lay wanaat dayoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que nee naa la ubbi na ma porte bu nekk. Mm-hmm. cest à ci li ñuy nekk te bu ñu tëb rek dem biir RTS maa ngi nuyu suma PDG. monsieur Moussa Faye bi nga mhm. xamante ne moo nekk CNM di nit ku baax nit koo xamante ne euh, aw ma fayam tey bu ma nekkoon ba nekk France 24 wala ma dem ba nekk fu gën a yéeg level boobu mhm. c'est grâce à Moussa Faye mhm. moo la booleeg waa RTS non en fait boolewu ak waa RTS dama jaar que en fait man a bëgg affaireu télé parce que damay yàgg suivre Pape Cheikh yàgg suivre ñoom Abba tu vois suivre ku ni Pape Anne yàgg suivre yenn kilifa yu mag yi et puis moi je ci li ñuy yëngu rafle nañu ñoo xamante ne ñoom ñoo ñu ñoo ñoo ci war a nekk suñuy ambassadeur mm-hmm. donc man pourquoi pas ma volontaire doon ambassadeur u ñuy tagg yeneen bi parce que loolu la ñuy soxla boo xoolee yenn vendredi ba vendredi la ñuy teg ay affaire u diine wala suñu ay clip wala genre yu demee noonu donc mois je suis pour gën a fësal liggéeyu yonent bi sallallahu alayhi donc mu tombeek Euh, ñu trouvé benn accord ak waa RTS. ñu soxla woon tamit profil boobu ñoom. waaw et puis waaw dañ ko soxla woon. Mhm. dañ ko soxla woon parce que euh, ku xool RTS ni muy doxee nga mhm. xamante ne programme bi mu ngi changé bu baax a baax a baax mhm. et puis ñu ngi ñu ngi mayaat chance aussi ñun jeunes yi. parce que ñu gën a fësal suñu liggéey. Nurul Huda maanaam. mooy jantu leer. jantu leer soxna moo ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi ne ko yow yaay sama jantu leer yaay sama jantu donc moo tax ñu jël émission boobu dippee ko yonent bi sallallahu ngay ngay daral ay kàngam mhm. daral na xeetu diine bi yëpp parce que gis nañ sax chorale catholique Aboubakry mhm. daral na leen mhm. yaay c'est le choix c'est ton choix invité yi il nga di il nga wax aussi c'est la première fois ci histoire dans l'histoire Sénégal waaw ah. non mais waxal loolu yàlla baax na c'est la première fois ci histoire émission religieuse boo xam ne ci yonent bi nee na lay wax uh-huh. mu taral fa chorale ñu ba pare daw RTS. moo lay wan ne kon ñun dañu bëri doole. ah yaa ngi liggéey ñoom ñoo liggéeyu. non <laughs> ñeneen ñi liggéeyuñu. <laughs> yow <laughs> loolu ñëwee noonu. bon loolu mu ngi ñëwee naturellement aussi ah. parce que loolu bi ma koy def sax man xam naa ne. ndeysaan maa ngi nuyu de passage suma directeur bi ma koy def xam naa ne jaaxaloon na leen franchement parce que dama xëy rek ma ne man pourquoi pas ma invité ñi nga xamante ne ñoom ñooy bokkuñu waa jàngu bi damay dawal ñëw ba ci péyage bi ñëw di fay péage bi rek am benn femme ndeysaan dama pourtant man chrétien la mais dama lay dama lay bëgg dama lay bëggee quoi waaw mm-hmm. ma ne ko pour xoolal yéen tamit dinaa leen delloo njukkal donc automatiquement fi may dem laa ne attends Julien Jouga waayoon ma yonent bi donc pourquoi pas ma woo waa jàngu bi ñëw ñu def émission donc la gars le gars bi ma ko woowee ne ko dama man la je m'appelle Aboubacry Samb dama la soxla ci benn émission Euh, boo xamante ne émission religieuse la mu ne ma attends comment ça émission religieuse nga bëgg man ma ñëw ci ma ne ko si dama bëgg nga ñëw ci ma ne ko parce que ñun ñun ñun jullit yi dañuy am daayira murit yi am nañ daayira tijaan yi am nañ daayira mais yéen chrétiens yi dama bëgg xam seen daayira nan la rek waa ji toj <laughs> ndeysaan mu ne waaye rek waa ji reetaan ne ma waa amul problème naka lay demee ma explique ko ne ko dama bëgg waxtaan yéen aussi si seen religion naka lay demee waay chorale yi voix ngeen koy defee lan la donc bi ñu ñëwee ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñoom ci seen bopp sax affaire bi daf leen. daf leen mais lu neex la woon euh, macha allah et puis man tamit parce que Asi émission bi ñuy def àdduna ñëpp a ngi koy seetaan sa émission bi tey ñëpp ngi koy seetaan macha mm. allah ñu ngi ñaan yàlla suñu borom gën ci teg loxo mm-hmm. mais murid bi tijaan xaadir ñaseen laayat bi ba mm. ci chrétien yi dañ koy mm. seetaan donc ñun aussi war nañ à chaque fois ah di leen bàyyi xel donc loolu moom moo ñu poussé à que ñu invité leen RTS. bi ñu ñëwee ñu def émission bi et puis yàlla def. Pape Hann sa idole la. sa sama idole la waa moom moom sa da koy topp bu baax. Pape Hann waaw dama koy topp dama koy topp ci ci bëgg yonent bi dama koy topp ci charisme dama koy topp ci mbaaxam Pape Hann dafa baax Pape Hann nit la ku baax baax a baax ku tabe nit ku yiwa yiwa yiwa yiwa nit la koo xamante ne wax dëgg yàlla wax naa la ko télé bi ñuy def bokk na ci ñu ñu poussé à ñu koy ñu koy def te gis nga bi yàlla dogalee yàlla dugal ñu biir RTS biñ ko soxlaa ñëw na pour may ñu loxo donc sama xarit la maa ngi koy nuyu de passage. Apaké ah, am nga projet dans la vie en fait au-delà de way yi et tout euh, gisaguñ la nga dem nga woote fu ngande pour ton public. Mhm. Euh, yaa ngi ci projet yooyu. si maa ngi si projet yi waaw parce que bëggoon nañ ko def bu yàgg mais je me dis dafa jotagul ah lu ci mel ni grand théâtre parce que def nañ fi ay événements yoo xamante ne. bi ñuy loué chaise rek ëpp na mille places. sa sa koñ quoi sama koñ. waaw événement yi ngay jotagum sa koñ. waaw sama koñ day nekk mais ñu ngi ñu ngi ci ay projet au niveau de euh, fii ak international yëpp ñu ngi ci ñu ci ñu projet yooyu. yaa ngi ñu ngi lay woo pour nga voyager def ay conférence wala comme. animation waaw ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy woo mais ambassades yi ñoo ñu ko dul ambassade ñoo ñu dul yombal yenn liggéey. dafa sa da ngaa xew da nga def sa plaidoyer wax na leen carrément ah, nañ la may. waaw xam nga xam nga tey par exemple non doy na waar quoi. mais foog ñu tapé la ñu tapé la nii rek yow waaw ah, du man rek du man rek du man boo xoolee tey bëri na ñoo xamante ne bu ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi boo xoolee ci mag ñi rek ngay gis ñoo xamante ne ñu ngi dem ci yenn événement yi am foofu donc a chaque fois moi je me dis que war nañu am benn kuréel goo xamante ne tamit war nañu toog di kaas suñu ay droit. est que du du c'est pas le ay goj xaw ma dañ ko olof di waxee noonu. waa non c'est le moment c'est le moment parce que dañ ko raflé amuñu association boo xamante ne tey war nañu mën a kaas ci suñu ay droit c'est-à-dire bëgguma citer tour di tooñ mais kiy def sax lu gën a lu gën a gën a gën a gën a baa ci métier moom la ñuy gën a may visa que ñi nga xamante ne ñu ngi tàggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam et puis yooyu tamit ñu ngi ci ñu ngi waajal yoo xamante ne incha allahu rabbi dinañ ci dinañ dinañ dinañ ñaxtu quoi <laughs> wax lu ñu metti waaw dox ñaxtu dañuy ñaxtu il faut ñu ñaxtu pour ah, gars yi ñu bàyyi xel nag loolu moom boo booy la ñaxtu sax woo ma nag ndax vraiment kuy tagg yonent bi yaa a des sénégalais yoo xam ne ku ci mel ne Oustaz Pa An par exemple koor gi day génn dem extérieur ku ci mel ne Oustaz Modou Fall hmm. ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi tagg yonent bi dañuy génn waaw Oustaz si rek ngay gis ñoom rek ngay gis ñu dem mais ñi nekk ci seen ginnaaw ñëpp duñu am opportunité dem donc yaa am problème hmm, du du politique bi ma la doon wax sànk la est-ce que le gouvernement mi def li ko war ci loolu. gouvernement bi daal xam naa ne. Mm. ñu ngi woo mbëri ñu ngi woo ñiy def musique ñu ngi woo peut-être ñiy def théâtre mais ñiy tagg yonent bi gisoo. gisoo leen xeeb daal. waaw bu nu bu xeebee mooy xeeb nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la vérité ñun mënuñ ñoo xeet parce que kiy def musique balaa ngay xam ne tagg yonent bee am doole dëgg kii def musique boo amee safaan danaan nañ wooy imaam bi wala ñu woo ñuy tagg yonent bi wala jàngkatu xasaay kon mënuñ ñoo xeeb mais ñun tamit ñun ñoo war a xam suñu bopp hmm. le problème mooy ñun ñoo war a xamaat suñu bopp xam suñu valeur xam fu ñu war a dem ak fu ñu warut a dem moo tax c'est vrai que boo waxee ne est-ce que du dañ leen xeeb man lu may gëm la ah, à un mais man abu Aboubacry Samb kenn mënu maa xeeb parce que dama xam li ma yor lu fépp laay dem nag waaw fépp fu ma dem rek dañ ma woo allo kar dama bëgg nga ñëw fii danga nga bëgg ma ñëw ñaata nga may fay ma déplacé bi day leer waaw cachet bu leer ak cachet bu diis ah man dama koy wax xew nag waaw non <laughs> xew de léegi mariage yi ngénte yi <laughs> ma euh, dëj yi événement yi lépp abakare koy way dangaa xew de dëj rek laa dul fayeeku nag ah dëj moom doo fayeeku da loo am jël waaw dëj moom dëj dëj laa dul fayeeku te lu ma fa am sax mun naa ko joxe waat ah. waaw dëj rek laa dul fayeeku mais nit ku ma soxla non danga may danga may danga may fay asi mm. parce que daf ci am ñoo xamante ne da ngay ñëw ñu woola nga ñëw tagg fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare ñu taxaw ne la merci te deux heures de temps après mun nañu woo ki nga xamante ne mooy bongo maan bi yëkkati lu bari jox ko ah, donc moo tax man la ñun ñoo war a xam ne ñu yor non man de am naa fulla fulla goo xamante ne asi nit day dafa danaan kaa woo Abu Bakri programme sax bu xalaatee mm. Abu Bakri Samb asi ñun li ñuy sol moo gën a cher li ñuy may ci programme yi parfois billaahi te asi yëgal ne lu ñu am ci programme barki Serigne Babacar Si barki alxuraan fan lañ koy joxe waate man lu ma am ci programme balaa maa dem fa laa koy joxe waate mu jeex doyloo nag sama sama sama cachet mm. il est ñu xam ñu lu ñu yor quoi xam lan la parce que mënuma comprendre bongo maan bi nga jox ko kase kii tagg yonent bi mënoo ko 300000 ak 400000. ah voilà kii tagg yonent bi mënoo ci moom 100000 wala ci moom 100000 qu'on la ah. vérité. waaw man nag man doxewuma foofu newuma foofu man ku may woo pour programme danga may déplacer jox ma. Mhm. waaw boo demee nag sa programme tëddee neneen li ma war a def dama ko fay def su su fekkee sa programme dafa tëddee neneen joxoo ma cër fekk encaissé na